le 28 juillet dañ arrêté Ousmane Sonko il eu tout un débat euh, sur euh, le procès sur le verdict par contumace euh, les avocats d'Ousmane Sonko yow ngeen jàpp ne euh, l'action et éteinte à partir du moment où Ousmane Sonko a fait l'objet d'une arrestation le garde du sceau génn mu ne euh, arrêté wuñu ko ci même procédure bi ça n'a rien à voir Euh, donc l'action de contumace n'est pas n'est pas éteinte euh, ñu euh, continuer quelques jours ñu radier Ousmane Sonko des listes électorales en se basant sur ce verdict par contumace euh, ñu euh, déclarer son son inéligibilité parce que euh, en cas de condamnation par contumace da ngay suivre toutes les rigueurs de la loi yi nga xam ne dafa lié à cette voilà à cette condamnation euh, yow jàpp nga ne jusqu'à preuve du contraire Ousmane Sonko reste éligible et donc il peut candidater pour la présidentielle de 2024 Ousmane Sonko conserve intégralement tous ses droits tous il est le candidat désigné des patriotes depuis le 13 juillet 2023 Ousmane Sonko dara gàllankooru ko pour mu mën a nekk candidat droit laay wax dañu nii bu ñu la condamné daan la par contumace xam nga li neex ci mbir mi mooy même suñu maam yi ñeneen ñëpp xam nañ léegi certains termes du droit li may wax naan euh, ça permet même de discuter par le droit am na solo parce que le droit est quelque chose de très sérieux pour qu'on le laisse aux juristes constitution bi même c'est l'affaire de citoyens ce n'est pas affaire des juristes wala de colloque et cetera Sonko bi ñu ko daanee ci affaire Adji Sarr bii mais ñaari kàttu la war a tëdd bu fekkoon ne moom jàpp nañ ko jàpp nañ ko laa wax mu toog noppi ci diiru fukki fa fukki fan mooy maanaam lañ ko daan bay way na muus mënatu ci dara waaye bu fekkee jàpp nañ ko ci fukki fan yi envoyé naa la ko sànq acte de non acquiescement bi ñu ni ci fukki fan yooyu noonu kii di Ousmane Sonko su jëlee moom mu jébbal ne mankat teg nañ ma loxo waaye lañu ma daanoon man ànduma ci loolu mooy lañ ko daanoon nax na saay la ko àtte woon nax na saay maanaam anéanti en droit nag damay wax ne on ne distingue pas là où le, la loi n'a pas distingué loolu moom étudiant première année bu ñëw lañ koy. mais mais mais xam nga non danga may may ma tuuti ma yeggale. kon foofu mooy Ousmane Sonko dara tënkatu ko fa dara bu loolu amul woon maanaam article L29 da ko doon tënk mais comme def na acte de non acquiescement mooy dara tënkatu ko la ñu ko tegoon naax na saay beneen bi ci topp ci affaire Mame Mbaye Niang foofu dañ ko condamné en premier ressort. ñu def appel mu dem cour d'appel ñu condamné ko pour ñu mën la xañ nga doon candidat il faut mu dem ba cour suprême yeggagu fa donc foofu aussi Ousmane Sonko amul dara lu ko gàllankoor may mun a li ma bëgg a wax mooy kii ñuy tudde Ousmane Sonko mooy candidat Pastef te dara dara gàllankooru ko maintenant ku bëgg nag nekk droit yow maanaam le ministre de la justice dama koy nommé su taxawee ne Ousmane Sonko condamnation définitive na juriste yi ko tontu. muy ñi féete kaw ak ñi féete suuf man ci suuf lañ may féete fa laa féete d'ailleurs ñi féete digg ñi féete fu ne ñëpp dañoo taxaw ne loolu mënta ne. maintenant leneen bi si topp nag mooy su ñu bëggee jël l'argument de la force teg ko nag sur l'argument du droit boobu ci leneen la ñu nekk. mais kii di Ousmane Sonko dara munu koo teree doon candidat actuellement ni à ce jour il conserve l'intégralité de ses droits. Ousmane dossier de candidature bi neuf pièces la ak neuf mentions matal na lépp. alors kii di maître Doudou Ndoye dama ko invité mu invoqué l' article 310 du code pénal qui donne la possibilité au juge de fixer euh, li nga xam ne euh, moom mooy le délai euh, du du du du de la de la de la condamnation par contumace alors Doudou Ndoye il dit euh, le délai pour purger la contumace peut être fixé par le juge ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire Ousmane Sonko euh, ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire Ousmane Sonko alors ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa parquet bi ak le garde du Sceau ñoom ñu accroché wu à l'article 312 euh, du code de procédure pénale euh, pour euh, fixer le délai ñu ne à partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Parmi ces formalités fixées à l'article 311, il y a l'insertion dans l'un des journaux de la République, l'affichage à la porte du dernier domicile du condamné, à la porte de la mairie de sa commune ou à la porte des bureaux de son arrondissement ou de l'arrondissement où le crime a été commis et au tableau d'affichage du tribunal de grande instance. Donc Ismaël Major Fall, il dit à partir que la publication de l'acte a été faite, la condamnation est devenue définitive donc acquiescement ou non acquiescement il sera frappé de toutes les déchéances prévues euh, par ce verdict par contumace waaw moom waxul li mu jàngale foofu xam nga da nga wax 312 wàcce et cetera mais boo jógee 310 311 312 man 307 code pénal xam nga fi ñu toll nii c'est la théorie des opérations complexes dafay am acte de base foofu la ñuy jógee mooy un jugement par contumace su ñu jàppee nit ki dama ne la ci délai 10 jours su defee acte de non acquiescement mooy c'est anéanti mooy la ca topp lépp c'est anéanti may mun bu ñu ko jàppee dans le cadre de cette procédure là. non yaa ngi distingué dans le cadre de n'importe quelle non xam nga yow yaa ngi distingué. boo toogoon ak man di ma wax lii doon étudiante première année dama naan la non il ne faut pas distinguer là où le législateur n'a pas distingué yow distinction ngay def. le droit pénal c'est le droit de la certitude. parce que moom bu amee. su ma waxee c'est le droit de la certitude mooy foofu ça concerne l'honneur la liberté le patrimoine et parfois même la vie des gens pour dëkk yi am peine de mort. alors bu un acte de non acquiescement ñu ne les charges tombent et un nouveau procès doit être organisé. Mm -hmm. dans les meilleurs délais. Mhm. aujourd'hui il y a eu un acte de non acquiescement. Mm -hmm. on n'a pas consacré euh, nu mu tudd l'extinction euh, des charges. et on ne parle pas de l'organisation d'un nouveau procès. xam nga le langage euh, droit xam nga dañuy naan en droit il n'existe pas de choses il n'existe que les noms des choses dañu ne la anéanti de plein droit wala ñu ne la de plein effet loolu mooy on n'a pas besoin de formalité <laughs> léegi li des leneen li des ça concerne tout simplement l'organisation d'un nouveau procès mais la woon woon ni na pour yow à partir du moment où arrêté nañu Ousmane Sonko dans le cadre de n'importe quelle procédure les charges sont tombées de plein droit que dañoo waroon organiser un nouveau procès. mais effectivement et donc puisque dans le cadre euh, de de ce nouveau dossier euh, concernant l'appel à l'insurrection euh, euh amul procès euh, donc il est il, il conserve a ne euh, et la déchéance de ses droits. du code électoral ne peut pas jouer en l'espèce Ousmane Sonko est totalement éligible si demain demain c'était l'élection présidentielle il allait être dans la course et Ousmane Sonko rien ne l'empêche d'être dans la course le dossier de candidature à l'élection présidentielle est composé de neuf pièces et de neuf mentions Ousmane Sonko matal na yépp amul benn bu ci am gàllankoor mais il est radié des listes électorales da nga gis da nga gis acte de radiation ah il est radié des listes électorales da Euh, il n'est non non non non non non foofu da fay teg sa baaraam da ko gis. xaaral xaaral même ma terminer parce que il n'est ni électeur ni éligible yan voie de recours la ses avocats am parce que à partir du moment où il est radié il tombe sous le coup de l'article 29 de, du code électoral. période révision des listes électorales jàllul jeexul. c'était en avril. période contentieuse kañ la. c'était en c'était deux mois après. ba léegi est-ce que mën nañ ko fi radié ci diggante bi. ah donc xam nga xam nga kon. pas rajo ci diggante bi radiation bi elle est elle est elle est elle est intervenue. au mois de juillet. non demal nga xool article 730 code de procédure pénale pare ñu xool gis nga suñu ko defee ça va être de l'abus de droit nee naa la l'argument de la force ne peut pas prévaloir sur l'argument du droit. kaaw Khalifa Ababacar Sall bu mu nekkee ci liste yi amoon na jugement contre lui ñeme wuñ ko woon génne ci liste yi dañu dem ñoom ñu dem. conseil constitutionnel ba mu clôturer ba pare ñu jébbal ko décision bi conseil constitutionnel accepté ko te conseil war waru ko woon accepté mooy dañu tooñ Khalifa Ababacar Sall ci tooñ googu nag tànk yooyu la ñu bëgg a nekk peut-être pour def ko Ousmane Sonko mais loolu mënut a ne parce que on ne peut pas prendre l'argument du droit di ko salfaañe jël l'argument de la force di ko teg ci kawam Ousmane Sonko tey. kenn mënu ko radier sur les listes électorales parce que Ousmane Sonko amul benn condamnation bu koy gàllankoor. mais une condamnation par contumace dafay entraîner une radiation des listes électorales la saisi de tout tes biens. <laughs> dans dans dans dans sa c'est l'article L29 du code électoral dans sa décision du 19 janvier 2019 waaw conseil constitutionnel day wax ne kan moo mën a nekk ci liste yi mu ne ak ku ci munta ne dafay wax ni même su fekkee ni tu es éligible mooy maanaam tu as la capacité de te maintenir sur les listes c'est-à-dire que même bu ñu leen génnee sax la condamnation dès lors qu'elle est anéantie tu da ngay mën a maintenir sur les ñuy def nii mbirum caaxaan la dama ko jàpp. mais mais mais vous êtes hmm? d'accord que la condamnation par contumace par contumace euh, dès qu'elle devient définitive. oui ah euh, la radiation sur les listes électorales euh, moom moo siy suivre. non waxuñu radiation dañu ne attention. entre la procédure de radiation ak li loi bi wax mun nañ ko pas expliquer dañu ni am na ñoo xam ne mënuñoo nekk ci liste électorale yi su fekkee ni ils sont en état de contumace ma ne la Ousmane Sonko son état de contumace est dépassé bu mu joxee acte de non acquiescement kon son Sonko mënatuñu ko xool comme une personne qui est en état de contumace. mais bi muy joxe acte de non acquiescement fekk na ne la publication de la décision a déjà été faite. moom laa lay wax nag. c'est-à-dire que mooy li ma lay nii ni même suñu publier décision bi l'essentiel moom su defee acte de non acquiescement. mooy amatul dara lu ko mën a gàllankoor pour mu mën a maintenir sur les listes électorales. mais est-ce que warul woon def l'acte de non acquiescement avant euh, la publication de la de la la la notification et la publication de la de la décision euh, par les dispositions prévues à l'article. ban notification dañ ko lan lañ ko notifié Ousmane Sonko lan lañ ko notifié. yow gis un acte de Ah, waxuma loolu ma ne. waaw est-ce que l'acte d'acquiescement de non acquiescement. waaw warul woon intervenir avant la publication de la décision. non loi bi lu mu wax c'est très clair suñu la jàppee la wax dafa ne suñu la jàppee dans les délais de dix jours ci ngay yow jébbal acte de non acquiescement. donc mënu ko woon def tant que arrêté wuñ ko wala moom mu dem jébbal boppam justice ba pare. mais on a dépassé le délai de dix jours. non on l'a pas dépassé. si on bi ñuy def la publication. non non jugé nañ Ousmane Sonko depuis le premier depuis le le le le premier juin dépassé nañ le délai de très loin bi ñu interpellé le garde des mu toog fii mu ne il doit y avoir une notification. et une publication de la décision. Oui. Et décision de, de, de condamnation par contumace, elle devient définitive à partir de la publication de la décision. <laughs> non non Ousmane Sonko le fait. non non non non non loolu amalgame la. bi mu nekkee en état de contumace mënoon na ko nekk pendant cinq ans parce que prescription bi cinq ans la woon dëgg la wala dëgg. Mhm. mënoon na nekk en état de contumace pendant deux ans parce que ci loolu lañ ko condamné mais ci diggante cinq ans yooyu. pour mu définitive il faut ñu yegg cinq ans yi dañuy ji ci diggante jour bi ñu ko condamné ba bu ñu maanaam bi ñuy notifier la décision ba cinq ans yi di mat foofu diggante boobu noonu bu fa demee bu ci demee jébbal boppam justice wala ñu jàpp ko ci mooy ci dele 10 jours yi am na trois jël acte de non acquiescement ni man d'accord ma ci su ko defee mooy lañ ko tegoon naax na saay keneen ku wax leneen nag te dëgg ba léegi donc ban situa nan nga mën a décrirer situation bi ñu nekk alors euh, yéen bu considérer que les charges son sont sont de plein droit euh, le ñoom jàpp nañu ne procédure ñoom ñu ngi distingue procédure bi ñu ko jàppee ça n'a rien à voir avec le procès par continuence et puis on ne parle pas de l'organisation euh, d'un d'un d'un nouveau procès waaw mais xam nga loolu man bettuma parce que ni ñu def Ousmane Sonko moom la ñu def Bassirou Diomaye Faye tey def ko def ko def ko Fadilou war waruñoo bett nee naa la posture bi ma taxawee nii c'est parce que tout simplement il y a des inconvenances à l'état de droit mais c'est quoi les solutions de, de dans un nombre régulier judiciaire pareil en tout cas li ma mën a xam mooy Sénégal état de droit la bàkke boppam Ousmane Sonko dafa am àq ak yelleef mënuñu ñëw di ko teg loo xamante ni nii du yoonu Sénégal loolu nag bu amee wax naa la ko comme un état violent risque d'être livré à sa propre violence et laissé à li may wax nag peut-être ñu xam man nañ koo dégg bu ñu demee ba nit ñi li nga xamante ne moo leen revenir ñu xañ leen ko amul fenn fu ñu ko mën a jooytoo mooy li ma la wax un état violent risque d'être livré à sa propre violence et laissé à xaw ma nag lan mooy xew mais li ma xam mooy li fi xew mars ak juin war na mooy li ma doon laaj sànq su ñuy wax ne Ousmane Sonko atteinte à la sécurité de l'État et cetera atteinte gi da nga mës nga gis benn nit ñu ne la kiy Pastef la bokk moo rey tel policier wala moo rey tel gendarme mais amul et pourtant les manifestations étaient violentes il y a de morts pourquoi il n'y a des enquêtes mais France génnee benn nit moo décédé mais le policier a été arrêté le ministre de l'intérieur génn calmé ñun suñu dëkk lan la dañuy wax ne ay terroristes lañ ñi koy def ay lan la man président de la république taxaw na ne les violences les violences man jàppee wu ma li fi am violence c'est des révoltes Ousmane Sonko wax nga sànq ñu ne appel à l'insurrection c'est pas l'appel à l'insurrection c'est la résistance à l'oppression loolu laa gëm. sur le principe sur les faits mooy ne Ousmane Sonko est radié des listes électorales. man gisaguma gisaguma. gisaguma gisaguma gisaguma acte de radiation il n'est ni éligible et donc non sur man je reviens au fait yow tu, tu donc. jusqu'à preuve du contraire il ne peut se présenter à la présidentielle de 2024 non loolu mënu ma ko tenir xam nga lu tax mënu ma ko accepter mooy amul benn acte de radiation à l'encontre de Ousmane Sonko bu ma gis la deuxième chose mooy Ousmane Sonko kenn mënu ko radier sur les listes électorales loolu nit ñi dama bëgg ñu xam ko Ousmane Sonko reste éligible il conserve l'intégralité de ses droits. la présidentielle. non il est le candidat désigné